waa di leen remercier yéen ñëpp di leen sant bu baax ci seen ci seen teewaay tey ci conférence de presse euh, di wax Sénégalais yi fépp fu ñu mënte nekk euh, seen i doom euh, seen i rakk ñu ngi waajal tey coupe du monde di sàkku ñaan ci Sénégalais yëpp fépp fu ñu mënta nekk euh, ñu ñu ñaanal ñu fu ñu jëm noonu yàlla may ñu fa ndam comme ñu ko mayee ci ci Égypte ci barke Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te xam naa ni que mën nañ ko euh, ay borom baax a dëkk ci dëkk bi waaw te xam naa ni boo leen ñu ñaanalee incha fu ñu bëgg a dem dinañ ko egg euh, première question bi mooy situation Sadio Mané mais d' abord situation liste bi comme ni ngeen ko xamee liste boo xam ne la mën naa wax ni maanaam ci continuité lañ nekk ci ci ci liste boobu boo leen xoolee liste bi am na ay joueurs yoo xam ne joueurs yu expérimenté nañu mais moo am ay joueurs yoo tamit yoo xam ne tamit ay xale nañu mais xale yooyu yëpp muy ak joueurs expérimenté yëpp mën naa wax ni que ay compétiteurs lañu lu tax ñu jël leen parce que am na loo xam ne gis nañ ko ñoom loo xam ne xam naa ni nag blessure Sadio Mané bi doon na loo xam ne jaaxal na Sénégal yëpp jaaxal na askanu Sénégal yëpp jaaxal na même Afrique yëpp monde sax ñëpp a ngi ci ban situation la nekk ñu ngi dalal ñëpp di leen wax ni que nañu dal dañ ko ñaanal am nañu yaakaar ni que ah ñu ñëw euh, rejoindre xëy na au départ dafa man mënta nekk parce que dafa am ay examen yoo xam ne ñu koy def euh, ñu xaar ba semaine prochaine dina am yeneen examen yoo xam ne dinañ ko def ñu am yaakaar ni que xëy na fii rek euh, suñu ñetti match allah. dinañu dinañu dinañu ñëw rejoindre waaye fu mu nekk nii daal ñu préféré ko bàyyi ko club am mu continuer di liggéey foofu et puis après par la suite euh, ñu xool la nañu war a defar moom mais une chose est sûre mooy que ñu ci liste bi ndax euh, ma dafa amoon importance ci man pour que justement ñu bàyyi ko ci liste bi. waaw mais am na yeneen joueurs yu fi yu fi nekk gaa moom Sadio Mané remplacé ko doo xam ne lu yomb la waaye am na ay joueurs yoo xam ne tamit je crois que tey Sadio bu fi nekk ñoom ñoo war a tamit wane ni que mën nañu tamit ñoom euh, def li ñu war a def ci terrain bi pour que justement ba écoute ak sans fouka Sadio Mané boobu ba ñu mën ko ñu mën ko ñu mën ko remplir comme ni ma leen ko waxee Sadio bokk na si suñu joueur yoo xam ne ñoo gën a xarañ ci suñu équipe bi tey mën naa wax ni que bokk na ci joueur yoo xam ne ñoo gën a xarañ ci ci àdduna bi euh, tey situation bu mu nekkee nii vraiment ñu koy naqaroon bu baax a baax a baax parce que xam naa ni bëggoon na. bokk ci ci ci ci ci groupe bi tey lu ko dal bi xam naa ne lu métti la donc suñu xalaat yëpp a ngi si moom ñu ngi koy ñaanal euh, souvent nit ñi dañuy wax équipe bi équipe bi équipe bi mais dañuy fàtte ni tamit ni que euh, joueur bi tamit mu ngi koy naqarlu bu baax donc nañ ko ñaanal rek mu yàlla may ko wér mu si bu baax baax. question la mais su ma demee si mooy que bu ñu dem coupe du monde Sadio Mané ne fi nañ toog non du loolu c'est vrai que Sadio. Euh, impactam ci équipe bi xam nañ ko bu baax a baax a baax baax waaye tamit ñu am yaakaar ni que le fait que néew fii ci début de de de stage bi xëy na loolu tamit mën na mën na pousser na joueurs yi tamit mën na pousser suñu équipe bi jox ñu tamit benn motivation boo xam ne pour jouer pour ñun mais jouer pour Sadio pour que mu mën a dellu si donc je crois que noonu laay gën a xoolee euh, mbir mi benn euh, entraîneur bëggul football sans son meilleur joueur entraîneur yoo gis yëpp. qui veulent jouer ak seen seen meilleurs joueurs mais tey yàlla def na ni que suñu meilleur joueur dafa feebar mais taxul ni que équipe nationale dafa war a taxaw il faut que tamit ñu uti yeneen solution justement pour que justement ñu préparer yeneen joueurs fi nekk pour que justement ñu défendre dignement la sélection l'équipe nationale